الله أكبر الله أكبر الله سان إلى يوم الدين أما بعد ñu ngi sant borom bi subhaanahu wa taala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di dénk suñu bopp di leen dénk ragal borom bi subhaanahu wa taala ak bàyyi xel doxalin yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci suñuy pas-pas ci suñuy wax ak ci suñu mboolee mi jëf mbokk yi ñu sant borom bi subhaanahu wa taala mi nga xamante ne moom mooy xool place bu ko neex mu tànn ko ci place suuf si te bokk na ci place yi borom bi subhaanahu wa taala tànn te ñu gën ci suuf mooy jàkka ya borom bi subhaanahu wa taala it gënale jàkk ji ñuy tuddee al masjidul aqsa nekk fële ci Palestine mu gënale ko ci ay jàkk yu bëree bëri ginnaaw jàkk bi nekk Màkka ak jàkk yonente bi aleyhi salaatu wassalaam borom bi subhaanahu wa moo barkeel jàkk jooju moo ko def it mu nekk ndono ñeel xeetu yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon mbokk yi war nañ xam place bi rey bi nga xamante ne al masjidul aqsa bi nekk fële ci Palestine am na ko ci pas-pasu jullit ñi place bi nga xamante ne am na ko ci seeni xol place bi nga xamante ne am na ko ci histoire l'islam ngir ay njagle yi nga xamante ne borom mi subhanahu wa taala defal na ko ak i ay ngéneel bokk na ci ne al masjidul aqsa mooy ñaareelu jàkk bi ñu tabax ci kaw suuf abu darrin radiallahu anhu mu ne benn bés laajoon naa yonente bi salallahu alayhi wa alihi wa sallam ban jàkk la ñu njëkk samp ci kaw suuf mu ne ko al masjidul haram muy jàkka ja nekk ci màkka moom la ñu njëkk samp ci kaw suuf ma ne ko ban moo ci tegu mu ne ma al masjidul aqsa muy jàkk jële nekk ca Palestine mu laaj ko mu ne ñaata moo dox seen diggante ñaata at mu ne ko arbauna sana seen diggante ñu ngi magante ñeent fukki at lañu la ñu magante kon mooy ñaareelu jàkk ji nga xamante ne tabax nañ ko ci kaw ci kaw suuf ñaareel ba mooy xible bi njëkk ci jullit ñi jullit ñi falañ doon jublu di jaamu borom bi subhaanahu wa taala lu tolloog fukki weer ak ñeent lu jiitu borom bi subhaanahu wa di wax nañu wëlbatiku jublu fi nga xamante ne mooy al masjidul haram yàlla subhaanahu wa taala wax yonente bi alayhi salatu wasalaam qad nara taqalluba i fi sama yonente bi alayhi salatu wasalaam bi mu gàddaayee jóge màkka dem madina da doon taxaw madina di xool ci kaw fekk xool bi yépp mu ngi ci màkkatal mukarrama borom subhanahu wa taala ne qad nara taqalluba wajhika fi sama ñu ngi gis ni ngay wëralee sa bopp bi sa bët yi di xool namm lool li nga xamante ne moom mooy màkka <clears throat> falan walliyannaka qiblatan tardaha dinañ la jubal ci qibla boo xam ne di nga ci kontaan kon fa walli wajhaka shatr al masjid al haram kon léegi na ngeen jublu màkka bu ngeen di julli kon foofu la ñu mujjee wëlbatiku di jublu màkka di julli waaye ci lu jiitu ñu ngi doon jublu jàkk ji nga xamante ne moom moo nekk fële ca Jérusalem ñetteel bi al masjidul aqsa mooy place bi nga xamante ne événement bu rëy ba muy al isra wal miraaj bi alayhi salatu wasalaam it jiite mboole mu yonente yi foofu moo nekkoon place ba subhana alladi asra bi abdihi laylan min al masjid al haram ila al masjid al aqsa yàlla subhanahu wa taala di kañ boppam di bàkk boppam di sellal boppam waaye mu jaarale ko ci giiñ ci li nga xamante ne moom mooy al masjidul aqsa ak al masjidul haram wane place yi nga xamante ne jàkk yooyu am nañ ko ba mu jiitale masjidul al masjidul haram mu teg ci al masjidul aqsa te benn ba fa la bi alayhi salatu salaam dépare beneen ba fa ñëw yéeg ci kaw asamaan borom bi subhanahu wa taala jox ko li mu koy jox beneen bi al masjidul suuf la soo xam ne ju sell la suuf su barkeel la di ko borom bi subhanahu wa taala waxee ila al masjid al aqsa alladi barakna xawla ñu yóbbu la ci al masjid al aqsa bi nga xamante ne dañ kaa barkeel barkeel it li nga xamante ne moom moo ko war borom bi subhanahu di xibaar it ci yont yàlla Muusa alayhi salaatu wasalaam bi Muusa di wax ak waa dëkkam da leen ne yaa qawm idxulu al ard ay yéen sama waxeet nangeen dugg suuf si nga xam ne suuf su sell la te al masjidul moom moo tax mu sell mbokk yi al masjidul aqsa comme nañ ko waxee mooy palaasu jullikaay bi nga xamante ne mboolee mu yonante yi ci la julli yonante bi alayhi salaatu wasalaam nekk seen imam juróom-benneel bi mooy al masjidul jullee fa ay tiyaabam dafay tolloog deux cent cinquante julli yoo xam ne dañ kaa jullee feneen ay tiyaabam noonu la gëne na li ngay jullee beneen place deux cent cinquante fois ba mu des jàkk màkka ak jàkk yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam abu dhar ne dama laajoon yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci julli boo xam ne dañ koy julli fii baytil maqdis ndax moo gën wala julli ci jàkk yonente bi alayhi salatu wasalaam moom moo gën yonente bi alayhi salatu wasalaam ne ko jullee ci sama jàkk ji ëppee na ko ngeeneel ñeenti yoon waaye aka mooy place bu neex mu jublu ci al masjidul aqsa aka mooy place bu xéewale kon loolu xiirtal la ci yonente bi alayhi salatu wasalaam ci ñu ci ñuy julli ci jàkk jooju yàlla na ko borom subhanahu wa delloo si loxo jullil ñi mbokk yi baytul maqdis nga xam ne al masjidul aqsa fa la nekk mooy suuf si nga xamante ne ci la ñu tasaare lépp waaye ci la ñuy dekkile doomu aadama yi bokk na it ci li nga xamante ne moom mooy lii wane yawmal qiyaam jegisi na ci ubbi boo xam ne dañ koy ubbi Jérusalem baytul maqdis Awf ibnu Malik radiallahu anhu mu ne dama dikkoon ci yonante bi alayhi salaatu wasalaam ci xaswatu Tabuk fekk yonent bi alayhi salaatu salaam mu ngi ci benn <clears throat> place ci benn tànt bi ma ko laajee mu ne ma udul sittan bayna yaday saa nee na na nga wàññi juróom benn mbir yoo xam ne boo ko gisee xamal na yowmal qiyaam jege si na nee na mu boole ci fatxu baytil maqdis ubbi boo xam ne dinañ ko ubbi baytul maqdis di Jérusalem julli ñi yorewaat ko fukkeel bi mbokk yi moom mooy julli ci al masjidul aqsa bokk na ci loo xam ne dafay far ay bàkkaar abdullah ibnu amr radiallahu anhuma mu ne yonente bi salallahu alayhi wa alihi nee na yonent yàlla suleymaan alayhi salatu wasalaam ginnaaw bi nga xamante ne tabax na jérusalem ñaan na borom bi subhanahu wa taala ñetti mbir yoo xam ne yàlla nangu ko ñaan borom bi subhanahu mu jox ko nguur goo xam ne dafay ànd ak xam-xam ànd ak xikma borom bi jox ko loolu mu laaj ko ñaan ko nguur goo xam ne moom dong moom moo koy am keneen du ko am keneen du am nguur gu mel noonu borom bi subhaanahu wa taala may ko waaye mu ñaan ko jamono ji nga xamante ne ba tabax na jàkk ji ba pare mu ñaan ne ñaan naa la yow borom bi subhaanahu wa taala amul kenn koo xam ne dina ñëw fii ci jàkka ji lu dul julli dong moom moo ko indi lu dul ñaan naa la nga jéggal ko ay bakkaaram mel ni bés bi nga xamante ne ci la ci la juddoo ne borom bi subhaanahu wa taala may ko loolu kon place boobu place bu rëy la mbokk yi aaya yooyu ak xadiis yooyu ak yeneen yu ni mel dañuy feddali palaasu al masjidul aqsa bi rëy bi nga xamante ne am na ko ci lislaam waaye cosaan la di cosaan bu rëy bi wane al umma al ci dëgg-dëgg mooy xeet bi nga xamante ne moom moo donn place boobu ak lépp loo xam ne wër na ko waaye dafay jëmmal responsabilité bi nga xamante ne jullit bi am na ko dafay jëmmal responsabilité jullit bi ci aar place boobu ci sàmm place boobu ci delloo ko ci loxo jullit ñi ci delloo ko ci loxo jullit ñi loolu nag dafa war bépp jullit moo xam buur yi la moo xam peuple yi la te waruñu see yox-yox yi waaye waruñu see am it benn faiblesse waaye waruñu see ëppal it waaye ñu defee ko ci li nga xamante ne noonu lañu ko suñu diine santé waaye li nga xamante ne moom mooy lu ñu tuddi at tatbiya muy normalisation bi nga xamante ne moom mooy am diggante jullit ñi ak yahudi nguur yi war nañ koo seetaat bu baax a baax bañ a wor ñi nga xamante ne ñoom ñooy seeni peuple dëglu seen peuple dëglu seeni pas-pas dëglu li nga xamante ne moom la ñu moom la ñu bëgg kon war na ci jullit ñi moo xam nguur yi la wala peuple yi ci al quds ak ci al masjid al aqsa li nga xamante ne moo fa xew nekk lu triste lool liñ ci njëkk a war moom mooy conscientiser jullit ñi bàyyiloo leen xel question bii nga xamante ne moom mooy question Palestine ñu xamal julli ñi ne question la boo xam ne question pas-pas la question diine la waaye du question boo xam ne question histoire la rek wala question géographique comme niñ koy waxee diggante arab yi ak waa banu Israël du question boo xam ne proche wala Moyen-Orient rek la concerné du question boo xam ne question palestinien donc la loolu nag jullit ñëpp a ko war a xam même ñi nekk biir Palestine war nañ xam ne question bi du question boo xam ne pour ñoom kese la waaye nañ ko teg ci li nga xamante ne moom mooy pas-pas teg ko ci li nga xamante ne moom mooy diine beneen bi al aalamul islaami muy monde islamique dañoo war a góorgóorlu nag nekk benn ci question boobu ndax borom bi subhaanahu wa taala lu mu leen may ci wàllu kàttan ci wàllu population lu leen may ci wàllu kàttan ci wàllu alal alal ji nga xamante ne moom mooy alal nu adduna bi lépp ci loxo jullit ñi la nekk waaye seen faiblesse tax na ba ñoom dañ leen di diriger diriger diriger waale li nga xamante ne moom mooy seeni seeni alal waaye bu fekkente ne dellu nañ ci suñu diine dellu bu wër dellu ci pas-pas bu wër borom bi subhanahu wa taala jàppale ñi jiite jàppale peuple yi ci li nga xamante ne moom mooy suñuy noonu kon loolu force bi nga xamante ne am nañ ko war nañ kaa xam ci wàllu alal ak ci wàllu li nga xamante ne moom mooy wàllu lim ci wàllu population amul kenn koo xam ne bu fekkente ne jullit ñi booloo nañ kenn koo xam ne dina leen féete kaw ci li nga xamante ne moom mooy wàllu lim bàyyi nag lépp loo xam ne yeneen i considération la ay considération régional wala yeneen waaye ñu topp li nga xamante ne moom mooy suñu pas-pas wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu comme ni ko borom bi subhanahu wa taala waxee beneen bi di tasaare nag li nga xamante ne moom mooy histoire Palestine tasaare li nga xamante ne moom mooy histoire al masjidul aqsa ba bépp jullit xam Palestine al masjidul aqsa ban place lan la war a occupé ci li nga xamante ne moom mooy xolam xamal leen ni jamono ji nga xamante ne it dem nañ ba séddoo Palestine daf ko tong-tong ci lu ëpp ñu jox ko ci ñi nga xamante ne yelloo wuñ ko te loolu ñu bëree bëri jamono jooju seetaan ngir seen intérêt bopp rawatina ñi nga xamante ne ñoom ñooy arab yi xamal julli ñi it projet bi nga xamante ne moom la ñu tuddee projet sioniste yi muy yahudi wala ñi gën a bon si ñoom projet bi nga xamante ne moom mooy moom la ñu am te moom mooy tadmir al masjid al aqsa moom mooy màbbal jàkk jooju ndax pas-pas bi nga xamante ne am nañ ko si ne am na loo xam ne yonte yàlla Suleymaan tabax na ko ci place boobu te ñoom ñoo ko moom te ñu teg ko rek ci ay prétention ci loo xam ne dara amu ci loo xam ne ay wax la te loolu ñu bëree bëri ci àdduna bi di leen jàppale ci loolu di leen jàppale ci loolu ndax boo xoolee jamono ji li nga xamante ne moom mooy li xew palestiniens yi la ñu tooñ ñenn ñi di leen génn ci seen kër ngir ne diw indi na benn kayit buy wane nangami at ay maamam ñoo fi nekkoon te mu nekk loo xam ne amut mu nekk loo xam ne amut loolu déclenché hostilité yi waaye palestiniens yi ñu leen di rey bu ñu fayoo ñu ne palestiniens yi li ñuy def di yoon waaye ñee am nañ droit pour défendre te ñoom ñoo tàmbali mbir yi te teguñu ko fenn ñëpp di seetaan ñëpp di seetaan mbokk yi loolu lu jara bàyyi xel la ci peuple yi waaye ci état yi ndax tooñ moom tooñ teguwul fenn foo xam ne dañ koy légitimer te palestiniens yi dañ leen tooñ di rey seeni soxna di rey seeni doom ay xale yu ndaw di leen rey kon loolu jullit bu nekk war na cee bàyyi xel kon dafay war ci li nga xamante ne moom mooy réew jullit ñi ñu jëfandikoo bépp moyen boo xam ne am nañ ko ci moyen li ñu tuddee moyen de pression moo xam ci wàllu OCI la wala ci wàllu feneen ndax jullit ñi néew néewuñu doole néewuñu kàttan waaye dafa dispersé wu waaye waaye wala teguñu ko fi nga xamante ne fa lañ ko war a teg waaye am nañ ay moyen de pression yoo xam ne mën nañ delloo ginnaaw ñi nga xamante ne ñoom ñooy communauté internationale Sénégal it war na jël responsabilité am ndax am na ay mbir yoo xam ne dirigé na ko ci wàllu Palestine li ñuy tuddee comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien nga xam ne bureau bi Sénégal moom ma ko jiite dëpp bi nga xamante ne sos nañ ko ci 1975 ba yeesal ko ci 2017 warul rek yenn condamnation yi ñu ci nooyal waaw boo xoolee ñenn ñi bu dañoo taxaw ci wetu Israël na Israël am na droit défendre waaye Palestiniens ñoom amul am ñu droit défendre jullit ñi bu fekkente ne ñu ngi wax ñu loolu seen yoon nekk si duñ ko wax. loolu nag lu doy waar la loo xam ne képp koo xam ne am nga responsabilité ci lu mel noonu nga wax ji wax joo xam ne wax ju dëgër la ba mbir yi ji arrêté. Palestiniens ñu jox leen seen état bi nga xamante ne signé woon nañ ko jamono ji nga xamante ne naam may nañ Israël ñu ñëw foofu waaye frontière yi nga xamante ne moom la ñu tracé woon. te ñu tracé woon ko diggante accord bi amoon ci li ñuy tuddee SAICAS ak PICO ñu delluwaat foofu delloo palestiniens yi li nga xamante ne moom mooy seen àq waaye du ñu bàyyi bés bu nekk rek ñuy dagg seen i suuf di màbb seen i kër Israël di gën a yaatal li nga xamante ne moom mooy suufam te kenn du wax loolu nag tegul foo xam ne yoon la te ñi nga xamante ne ñoom ñoo ci mën a wax mën nañu wax ba loolu arrêté waaye dañuy raay ndigg ki nga xamante ne moom mooy Israël ndax seeni i yi nga xamante ne moom moo fa nekk te li si gën a garaaw mooy lu ñu tuddee l'antisémitisme nga xam ne boo waxee ci Israël rek jàpp na yow da ngay ngañ ŋàññi yahuud yi te pourtant ñu ngi wax ci ñeneen ak ñeneen ak ñeneen kenn waxul dara xoolal réew mi nga xamante ne rek moom mooy réewu tugal ñu fay traité jullit ñi lu nekk lañ fay indi waaye loolu kenn du ko tuddee islamophobie wala leneen waaye ñoom ci seen démocratie la bokk waaye boo waxoon tuuti loo xam ne mu ngi jëm ci Israël rek maanaam nga tukkal àdduna loolu nag lu ñu war a seetaat la lu ñu war a xoolaat la te loolu jullit ñi ñoom ñoo ko ñoom ñoo ko seetaan mbokk yi ñu xam ne nag ñun jullit ñi am nañ arm bu rëy arm boo xam ne moo gën mboole mu arme yi muy ñaan borom bi subhanahu wa taala maye nañu ko te loolu moom kenn ku nekk ci ñun mën na ko kon bu ñuy fàtte mbokk yooyu di leen ñaanal saa su nekk bu ñu leen fàtte mukk di leen ñaanal te ñaan yooyu borom bi subhaanahu wa taala da koy nangu incha allah beneen bi it ñu am rafet njort ci yàlla rafet njort bu rëy ci borom bi subhaanahu wa taala am yaqiin ci ne suuf soosu julli ñi ñoom ñoo ko moom te ñoom ñoo koy doon donn sëtu yontu yàlla ibrahim te ñi gën a yàlla ci nekk sëtu yontu yàlla ibrahim du ñenn ñu dul jullit ñi ndax ci lim doon woote ci la jullit ñi nekk ci la yonente bi alayhi salatu wasalaam woo jullit ñi abi hurayra radiallahu anhu mu ne yonente bi salallahu alayhi wa sallam nee na laa taqumu saa yowma alqiyaama du taxaw mukk lu dul xata yuqaatila almuslimuuna alyahud lu dul jullit ñi dañuy xeex ak yahud yi fii waxul palestiniens yi waxul ñeneen waaye jullit ñi la wax kon ñëpp ci lañ bokk ba ñuy xeex ak yahud yi nee na ñi di leen rey di leen rey ba yahuud yi dem di làqatu ci ginnaaw ay xeer ci ginnaaw ay doj ak ci ginnaaw garab ba garab yi dafay woo jullit bi ee yow jullit bi ñëwal yahuud a ngi nii sama ginnaaw ñëwal rey ko nee na ba mu des benn garab ndax garab googu moom mooy garabu yahuud yi kon loolu it war nañu may espoir ci ne suuf soosu julli ñi ñoom ñoo ko moom waaye julli ñi waruñu waa caaral di seetaan ñuy rey seen mbokk jullit te duñ ci wax te duñ ci wut li nga xamante ne moom mooy pexe fàtte leen loolu moom yellul ci ki nga xamante ne moom mooy jullit rabbana atina fi dunya xasana wa fi alaxirati xasanatan wa qina adab annar rabbana taqabal minna innaka anta alsamiu alalim wa tub alayna innaka anta altawabu rahim allahuma aati nufusana taqwaha wa zakkiha anta xayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha aqulu ma tasmaun wa astaghfiru allah li wa lakum wa lisairi almuslimin fastaghfiruhu innahu huwa alghafuru rahim allah